الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم mbokki jullit yi asalaamu aleykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen niñ koy defee dimanche bu jot ci waxtu yi fii ci rajo xasida online ci seen émission diaspora ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalube Pape Demba ja fi ci Touba Pontedera ci xarale bi serigne Modou Mbaye cham Baye Fall euh, ci geneen walu wa serigne pap Makhtar tal fele ci Parma euh, serigne Cheikh Mbacke Mbuub Alaaji Gawlu khadim rasoul ak mbokk yi nga xamni dimanche bu jot ñun ñom ñoy and ci émission bi di ziar ñëpp nag te jiital ci ziar bi sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Tuubaa suñu taxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar mbooleem kilifa yi diine yi rawatina Cheikh sëriñ Tuubaa euh, di ziar it suñu jëwriñ ci rajo bi sëriñ Mouhamadou di ziar sëñ njaay Ndiaye ak mbooleem euh, taalibe yi nga xam ni ñoom lañu bokkal rajo bi euh, ñu ngi ziar sunu jëwriñ sëñ Ablaye joob Daaru Xasanaat euh, sëñ Mbargu Diop mbokki auditeurs yi nga xam ni daanaka duñ ñu dañ ñuy bàyyi xel saa su ne bu ñu tàmbalee émission bi rek ñu ak ñoom la noo ngi ziar ñëpp. di ziar nag suñu jëwriñ maa ngi koy ziar bu baax Serigne Moustapha Mbaye Sam maa ngi déglu tey jii waxtaanam mu doon waxtaan bu am solo defe naa ni tey jii loolu rek doyoon na témoignage ci lii nga xam ni moo di actualité bi nga xam ni mën naa ni semaine bi yëpp. Euh, moom moo euh, téye euh, presse su senegal daanaka dem ba nga xam ni mën naa ni li li ñu waroon a wax lu bari tudduñu ko waaye it di ci sant bu baax Sëriñ Tuuba ndax kii ko fi nekkal de wone na ni moo fi taxawal lislaam loolu nag lu lu jara sant yàlla la euh, euh, euh, boo xoolee même fin de semaine bi rek mi ngi amaat <laughs> beneen polémique boo xam ni daanaka ci réseaux sociaux yi la danaa ci ñëwaat waaye nañu xam ni rek ñun murit yi war nañu gën a góorgóorluwaat sant dolli ci sant yàlla waaye it jéem a def ni sunu kilifa yi mel ndax tey jii eh, defe naa ni kuy xool sikk ci mm, ci eh, eh, yoon wi doo ko gis ci ki nga xam ni moo ko fi moo ko sos doo ko gisit ci ki nga xam ni moo ko fi nekkal ah, kon ñu ñi nga xam ni ñoo di taalibe war nañu góorgóorlu bu baax góorgóorlu nag buñ koy wax moo di lépp loo xam ni Euh, euh, dafay euh, tilimal deru mouridisme ñu fexe ba kenn duñu ci dégg wala boog lépp loo xam ni rek bu ko ab murid defee ku ko gis yaa ah, ñii ñooy ñeen war nañ ci góorgóorlu ba ba ba ba loolu taxaw li tax moo koy wax moo di mm, boo leen xoolee jamono ji daanaka Euh, l'islam dafa nekk mën naa ni noonu àdduna rawatina nag euh, euh, ñi nga xam ni daanaka mouridisme la ñuy la ñuy seet fu ñu gisee defo wala daanaka fu fay am ba ñu mën a taxaw pour joxar bi joxar bi ko maanaam def ci siñ boo xoolee rek semaine bi xew-xew boobu amoon Sénégal nga xam ni moo di euh, problème mu daara yi euh, li tax sax ma ci dugg moo di dafa nekk loo xam ni dafa nekk lu sensible mais ku ko dundul pour nga wax ci euh, lu jafel la boo xoolee tey jii mën naa ni daanaka média yi ak ñi nga xam ni dañ leen di wax des forces étrangères wala maanaam ay ay ay doole yu nëbbu. mën naa ni daanaka euh, euh, fexe nañu bo boole lii nga xam ni moo di sénégalais yi li tax ma ni sénégalais yi mooy dafa am ñaari ñaari catégorie yoo xam ni euh, tey jii ñoom boo leen xoolee ñoom ñoo doon wax ci daara yi ñi ñenn ñi di intellectuel yi daanaka ñoom raisonnement intellectuel rek la ñuy def ñeneen ñi di nitu daara yi nga xam ni dañ ko dund Eh, maanaam eh, namp ko mu doon seen seen seen seen seen seen àdduna yëpp daanaka eh, moom rek la ñuy nooyee tey jii dem nañ ba nga xam ni Sénégal ñaari ñaari ñaari côté lañ fa def loolu nag lu dangereux ci dëkk ndax dëkk bu ñu demee ba nga xam ni bu argument génnee dootuñu xool nan la ñuy def ba poser le vrai problème génne débat boo xam ni dafay indi njariñ waaye daanaka dañuy dañuy incriminer que discriminer loolu lu lu xaw a doy waar la euh, maa ngi ciy tooñ sama benn mag rek semaine bi ci Facebook bi ma gis daanaka bi bi bi premier jour yi amee ñu wane euh, ndongo daara bi wane image bu choquant nga xam ni image boobu daanaka waruñu ko woon sax di ko ci réseaux sociaux yi euh, mu commenté ci déjà commencé def procès ma bind ci euh, euh, bokk ci coow li de xam lu waral coow li moo ko gënal euh, li tax ma ko doon wax moo di maanaam coow loolu dafa nekkoon coow lu lu lu dangereux ci dëkk ndax boo ko xoolee daanaka ba fi mu ne nii conséquences yi dafa xaw dewaat ndax boo leen xoolee mm, mm, mm, dem nañ ba sax daanaka ay kilifa di ci jël kàddu association eh, des association des magistrats du Sénégal eh, eh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi jóg di ñaawlu xew-xew bi nga xam ni moo xew Louga di wax ni daanaka mm, sëriñu daara yi ñu ñëw maanaam yàqate tribunal bi fekk ne daanaka loolu boo ko xoolee tey jii responsabilité yi boo koy xool mën naa ni daanaka c'est c'est c'est c'est divisé ndax état bi taxawaay ba ci waroon am dëgg-dëgg euh, moom la amul ndax tey ji boo xoolee lu xew noonu nekk lu sensible tey ji état ministère de l'intérieur ñi nga xam ni ñooy rek kaaraange waroon ñu ñëw parce que keroog boo xoolee am na nit ñu fa gaañu euh, te nit ñooñu gaañu ñàkk kaaraange moo tax ñu gaañu gaañ ñu am fa ay gaañu gaañu te it boo xoolee daanaka euh, ay ay doomu aadama la yu ñëwoon ñi di seetaan si ñi di ñaxtu loolu Nek lo xamni tay ji état du Sénégal mo warona taxaw tek kaaraange ba war euh, ba lepp lu war mën fa am waye ndok ba nga xamé ni euh, Serigne Touba euh, moom mi nga xamni l'islam moko tax moko ñor moko tax juk def na ci lo xamni tay ji mën na ni lu ci bari tay ji mom mo tax bu démé non ndax tay ji bu ci Serigne Mountakha waxul woon keroog ca bés ba doon nañu sax-saxee euh, kilifa googu euh, tëj ko def ko li ñuy wax capos priatorio mu nekk ci maanaam pour joxe exemple sëriñu daara yi ndax boo leen xoolee Sénégal problème boobu am na fa ñun dañu am benn complexe boo xam ni ci sunum réew mu di euh, tey jii maa ngi koy wax rek ci am na benn bés ma koy wax ma ni tey jii nga gis président bu jóg war jël kàddu Euh, muslu ci seytaane euh, euh, tudd yàlla dooga tàmbali discours am daanaka dañ ko dañ ko dañoo am complexe boobu mu mel ni tey jii kon jot na ñu jóg xam ñun suñu histoire xam ñun ñooy ñan ba nga xam ni xëy na yenn yenn jafe-jafe yi wala bokk yenn yenn problème yi nga xam ni dañ koy dund suñu réew bu amee léeg-léeg ay réeroo ñu mën koo saafara saafara ci dal saafara ci euh, ci responsabilité waaye nag bañ a comporté wu comme ni tubaab bi di comporté wu ndax boo xoolee semaine bii li xaw Sénégal fexe nañu ba boole intellectuel yi ak sëriñu daara yi loolu lu dangereux la ci dëkk te tey jii boo xoolee daanaka ñaari ñaari catégorie yooyu ku ci nekk ci yoon da nga war a da ngay da ngay complété sa morom mais tey jii créé nañ fa lii nga xam ni. moo di moo di déchirure boo xam ne du yomba du yomba ñaw loolu nag état bi am na ci école française yi école tubaab yi nga xam ni da leen di saytu léeg-léeg di def sax ay ay daanaka ay ay xeetu. subvention di leen taxaw taxaw yore yore seen cen si xam lépp li nga xam ni moo fa war ak seen administration taxaw ko loolu euh, xewul ci daara yi mooy waral tey jii ngay dem ba nga xam ni sax même sëriñu daara yi nga xam ni dañuy sos daara dañuy dem ba maanaam euh, li nga xam ni moo di euh, yoon wi nga xam ni moom la ñu war a tëral dëgg-dëgg pour pour pour seen diggante ak yoon nguur gi duñ ko xam ndax it ñàkk taxaw ak ñàkk ñàkk ñàkk accompagnement bu leen état bi di campagne ndax tey ji boo xoolee ñii di enseignants yi nga xam ni ñooy jàngale eh, ci ci ci ci ci ci ci këru tubaab bi eh, da ngay gis ni eh, bu école jeexee léeg-léeg dañ leen di woo ñu def ay cours de formation ajournement leen jàngal bu loi bu bees génnee ñu mën ko xam yooyu yëpp nekk ay xeetu Ehm, ay xeetu eh, eh, eh, taxaw tey jii façon ngin jàngeen bi nu ñu nu ñu taxawoo gone yi ah, ah, lan lay yoon wax tey jii yooyu yëpp mais dañu leen di waajal <clears throat> ba mooy war tey jii ñu war a mun a taxaw ñoom ak ndongo daara yi nga xam ne ñoo féete côté tubaab ñu mën ci nekk ci yoon waaye boo xoolee sëriñu daara yi daanaka mën naa ne dañ leen a sàggane sàggane boo xam ni jéggi na dayo tey jii da ngay da ngay dem ci ay daara yoo xam ni euh, manque de structure manque de moyens yi fa am euh, yéeme na euh, te boo xoolee lii nga xam ni moo di daara li mu contribuer ci Sénégal li muy contribuer ci Sénégal daanaka école tubaab bi du ko contribuer ndax it ni ni yi di génnee ci ci école tubaab yi. noonu la ay intellectuel di génnee ci ci ci ci ci ci ci montu daara tey jii borom xam-xam yoo xam ni euh, euh, léeg-léeg moo xam dañuy jaar ci ñaari côté yëpp wala ñu jaar ci benn côté bi waaye fees dell xam-xam euh, ñu mën leen a jariñoo ñu doon ay ay patrimoine damay jël ku mel ni rek professeur sëñ sëriñ Sam yàlla na yàlla yokk leeram tey jii sëriñ Sam mën naa ni li mu jariñ Sénégal Um, defe naa ni bari na ay professeurs yoo xam ni mm, yu jàng ci tubaab yoo xam ni jëriñu ko Sénégal ak ñeneen nag ñeneen ñoo xam ni boo leen di boo leen di boo leen di euh, boo leen tudd tey jii euh, da nga yéem loolu nag il faut ñu dellu si xool suñu culture xam lan la ñu am ak li ñu li nga xam ni ñun ñoo ko moom ndax man dama gëm ni tey jii mm, sunu sunu histoire bu ñu amee complexe Euh, génnee génnee yenn yëf yi xool ko euh, ni lii kat ci suñu histoire la bokk rek mooy euh, yàlla nattu nañu ñu nekk li tubaab di wooye complexé loolu moo waral tey ji nga gis gars yi taxaw di wax maanaam sëriñ yi nangam sëriñ laa ndongo daara doo ko def nii yooyu yooyu naa ni le vrai débat qu'on doit se poser mooy Sénégal bi ñu nekk actuellement Euh, sunu nguur gi moo waroon na ko mun Muntaxa waxee tey ji poser le vrai débat woo sëriñ si xool ndax tey ji njàngale bi ñuy njàngale ndax yëg nañ ci sunu bopp dëgg-dëgg tey ji boo xoolee boo boo defee analyse yooyu da ngay xam ni wax dëgg fa yàlla sunu sunu sunu sunu sunu culture des na ci sunu ci sunu ci sunu ci sunum réew loolu moo waral te ji nga dem ba gis ni euh, ñun Sénégal lii nga xam ni mm, moom la ñu moom la ñu moom la ñu jël mu di mu di aada tubaab daanaka dañu dem ba nga xam ni léegi moom la ñu jël yaakaar ni ñun moom loolu moo waral tey ji ngay gis euh, buñ la nee sax diw ministre la bu sol costume ak cravate euh, yaakaar na ni euh, du intellectuel loolu nag mooy lii nga xam ni moo di ay complexe yoo xam ni Euh, d'infériorité yoo xam ni daf ñoo noot ba nga xam ni tey jii euh, kii nga xam ni moo di kilifa réew mi tey jii buy waat daanaka ci constitution réew mi lay euh, ci constitution bi lay waat te constitution boobu daanaka boo ko xoolee tey jii lañ fa bind tey jii boo ko expliqué woon Sénégalais yëpp buñ ko bu ñu demee ba comprendre ko daanaka dañuy jàpp seen gémmiñ ndax dëkk boo xam ni. nee la quatre vingt quinze pour cent yi musulman musulman lañ wala quatre vingt douze yi nga jël cinq pour cent yi nekk ay chrétien trois pour cent yi moo nekk li nga xam ni daanaka ay diggante atela ak yeneen religion yi ñu ñu ñeme jël ay ay réew boo xam ni daanaka dañ koy teg ci li ñuy woowee athéisme maanaam ñàkk gëm diine nga xam ni te jii lépp luy sax luy luy luy luy nasaxal diine daanaka boo ko boo demee xool ko suñu constitution ma nga fa euh, euh, euh, dem nañ ba nga xam ni léegi xoolal suñu constitution même gouvernement bi ña fa def li nga xam ni moo di ministère du genre ministère du genre tey jii ñëpp xam nañ ci lan la jëm xeetu maanaam daanaka modernisation li nga xam ni moo di Occident nga xam ni dañuy dem ba léegi ñi ngi nangu yenn yenn union contre nature yi mu ñaar ñaari jigéen ñu ñu ñu nangu ne ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo con constitué famille wala ñaari góor ñoo constitué famille dem ba nga xam ni tey ci nga gis ñaari jigéen euh, jël jël benn doom seen doom déclaré ko ndax doom du ñu du ñuy du ñuy conchépir euh, maanaam euh, scientifiquement nga xam ni tey jii yàlla may na leen ba nga xam ni tey jii ak seen technologie même ñaari góor sax dañuy dem dem ci benn donneur mu mu mu mu mu defaral leen lii nga xam ni moo di moo di doomu aadama ñu am seen doom déclaré ko euh, bokk ñaari ñaari xeet mu di ñaari góor euh, euh, ñoom wane ni ñoom ñooy famille loolu nag ñun Sénégal bu fekkente ni nangu nañ ñi loolu lañu ñu bëgg a def maanaam mu doon sunum charte réew yaakaar naa ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi bëgg a naxasaay ndax réew moo xam ni tey jii euh, suñuy maam ba ñu amagul woon dara nga xam ni euh, euh, daanaka dara amu foon mag ñi fi nekkoon dañ daan xeex di xeex ak seen xel ñii di xeex ak seen doole ñii di xeex ak seen alal ba ba ni ñu ni ñu demee bàyyil ñu fa réew mi nga xam ni moo di Sénégal tey jii ñu ñëw am doole yoon may ñu léegi ñu am. lii nga xam ni moo di démocratie war a mun a am liberté créer sunum réew euh, euh, euh, maanaam mool ko ci ni nga xam ni moom mooy sunu aada sunu culture waaye boo demee daanaka ba xool tey jii Sénégal la nga fay gis ñu ne la lii kat moom mooy caada sénégalité daanaka boo jëlee cent pour cent ci statistique daanaka du mat sax dix pour cent loolu nag daanaka xep sa bopp moom moo ci. moom moo koy waral te it damay wax ni ndokk ba fa euh, ku mel ni sëñ Tuubaa amee ndax tey jii boo fa nekkul woon ah, dan doon na métti lool ndax tey jii boo xoolee daanaka mën na <coughs> tubaab yi la ñu amul ca Sénégal lu ci bari mm, euh, euh, grâce grâce a sëñ Tuubaa moo tax amuñu ndax tey jii la mu bañ daanaka moom rek moo fa nekk di yokk nekk loo xam ni tey jii nit mën na ci teg loxo. ba xam ni lii kat tey jii euh, moom moo ñu xaw a may tuuti sunu sunu indépendance wala sunu notoriété ba ñu war a mën a taxaw wax ni lii kat euh, maanaam nanguñ ko da ngay jël exemple ci Touba rek Touba tey jii moom rek lañu nangul dëkk boo xam ni tey jii borom dëkk ba mooy taxaw ni lii bëgguma ko ci sama dëkk ah état mun ko ko nangul euh, taalibe yi ñëw yëpp mun ko ko nangul ku fàttaliku rek. Euh, euh, euh, ba ñu ba ñu ba weer yi weesu nga xam ni Sëñ Tuubaa Sëñ dafa woo rakkam ñu tedd yëpp dajale leen ak njaboot Sëñ Tuubaa yëpp seex yi woo kilifa réew mi mu di président Macky Sall mu tegaat charte ya nga xam ni moom la Sëñ Abdou Lahad tegoon lii kat bugguma ko sama sama dëkk bi bugguma ko ci dëkku Sëñ Tuubaa bi président nangul ko ko waa dëkk bi nangul ko ko tey jii euh, amul beneen dëkk ci Sénégal boo xam ni ñeme na taxaw des loolu autonomie boobu nag xëy na euh, euh, damay gëm ni bu ko sëñ Tuubaa xeexul woon tey jii heure bi Sénégal daanaka dana dana metti lool ci ñun ndax donte metti na sax boo xoolee ndax jamono yi ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy jiite booy xool daanaka tey jii bu ñuy teg loi war a ñëw dëkk bu mel ni tubaa wax ak kilifa gi dem dëkk bu mel ni Tiwaawan euh, dem ci euh, euh, kilifa jàngu bi wax ak ñoom laaj leen nga xam ni tey jii balaa ñuy tëgg benn loi dañuy seet ndax dëppoog naag suñuy aada ak suñu culture doog koo mën a woote mais boo xoolee daanaka tey jii dañuy jël li nga xam ni moo di hmm, charte France wala constitution France dindi tur France bi rek bind ci Sénégal. Euh, lenn rek mooy différence bi mooy France moom dañuy bind république française ñun Sénégal ñu bind république du Sénégal euh, kon mu mel ni daanaka ñun boo xoolee euh, protectorat rek lañu nañu nekkee woon ci colonisation bi boobu ba léegi la nekk loolu nag defe naa ni ku ci nekk woon nga ci toog xalaat ci ñu xoolaat ñu gën delluwaat ci sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu aada ak ndax nit ki nag li mu am. li mu gën a am lu gën a cher ci moom mooy pas-pasam ngëm-ngëmam ak ak ak ak loolu bu ko ñàkkee rek daanaka amatul daal loolu nag euh, euh, ku ci nekk war nga ci am responsabilité ndax tey jii euh, jur sa doom di wax ni man sama doom duma ko dugal daara dafay dem jàngi tubaab ah <laughs> du ma ni baaxul de waaye dana dana dem ba benn moment boo xam ni daanaka la nga xam ni moo ko war a defal boppam euh, dana dana dana la mere lool mu mel ni nag génération bii nga xam ni mooy génération yu mujj yi moom defe naa ni euh, yàlla defal nañu ci sutura ndax ndax ndax tout tànk yi nga xam ni euh, léegi daanaka ñoo nekk Sénégal koo ci gis daanaka daanaka même buy dem jàngi foo ko fekk ñu ci ëpp bari na ñu ngi yore seeni dolu xasida Euh, euh, euh, di di di yàlla defal leen jël seen xol def ci Sëñ Tuubaa ba nga xam ni lu ci ëpp ay taalibe murit lañ di dund li nga xam ni mooy muridisme defe naa ni loolu xëy na mën naa nekk garantie boo xam ni war nañu mun a am yaakaar ni xëy na génération yi di ñëw coppite dina am ndax it ñu takkee sunu bakkan yi ci sunum réew nga xam ni fu ñu nañu xoolal la ñuy xool lu ñu def loolu la ñuy def Euh, métti na métti goo xam ni defe naa ni mm, ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo liggéeyoon euh, am luñ fi bàyyi doon bañ euh, tey jii bu ñu bu ñu bu ñu ñu woon danañ am lu leen métti demb rek ñi ngi fàttaliku ndeysaan mu nekkoon anniversaire defe naa en 1865 ci la Mbaba Jaxu da defoon xeexam bu metti boobu fële ca Nioro ba gañe ba gañe tubaab bi tey jii ñooñu mag ñooñu nga xam ni tey jii. gisuñu woon lenn lu dul yàlla ay tubaab bi bu ñu ñëwoon yor doole bu ñu mënti yor ñoom dañuy waxetlu suñu borom am gëm-gëm goo xam ni dara dara dara mënu leen soppi waaye boo xoolee jamono yi daanaka euh, am am ak euh, ak ak akum paleen dem na ba nga xam ni euh, suñu réew mi daanaka nit rusul jaay waajuram wala jaay doomam ngir bëgg a am tur wala am falit loolu nag bu ñu demee ba société toll ci noonu jaadu na léeg-léeg ku nekk jóg ñaxtu jooy euh, wax li nga xam ni donte mënoo ko sax faj waaye nga ñaxtu ko ndax it loolu la lislaam wax bu la dara méttee war ngaa jóg jéem ko faj boo ko faj nga wax ko boo ko mënul wax nga ñaxtu ko ndax it euh, xew-xew bi nga xam ni xew na euh, Sénégal nekk na nekk na lu yéeme métti na nag métti nañu lool te it nag ndax niñ ko instrumentaliser moo ñaaw ndax boo leen xoolee daanaka Euh, légui élément yaa ngi génn euh, lu ci ëpp bi ñuy doog a tàmbali nit ñi luñ doon wax euh, ay torture torture te boo xoolee daanaka yi fi règlement de compte la mu mënoonu mu mënoon nag daanaka mm, am tournure bu bu bu bu bu metti ndax ñi koy dund dëgg-dëgg ñi nekk foofu gis fa mu xewee ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo amoon contentieux parce que c'est ça le le le vrai nœud du problème mu di ay problème mu tool la woon ay problème mu euh, problème mu famille la woon moom la ñu jël euh, instrumentaliser ko ay nit daanaka def ci vendetta journalistes yi médiatiser ko ndax journalistes yi lu ci ëpp chronique rek la ñuy wër fu chronique am euh, ñu moom parce que looloy tax ñu mën a jaay nekk di def ay bës loolu dem na ba daanaka mën naa ni daanaka xaw naa xajale Sénégal kon war nañu léeg-léeg di seetaat surtout li nga xam ni mu di réseaux sociaux yi ni nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy euh, maanaam léeg-léeg di di di di hmm, di di di di di envoyé yenn image yi wala yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn nouvelles yi ngay gis léeg-léeg dara xew rek euh, ñu yónnee la benn ñu yónnee la benn benn vidéo wala benn benn kii rek saa nga commenté ko da ngay ñëw rek envoyé keneen ñëw envoyé ko loolu nekk lu dangereux loo xam ni dañ ci war nit ki lu luñ la jox danga ko war a seet euh, euh, euh, càmbar ko doo ko mën a doo ko mën a doo ko mën a jàllalewaat waaye ñun léegi daanaka dañu am benn vice boo xam ne diggante WhatsApp ak Facebook daanaka sénégalais yi mën naa ni lu ci ëpp ci suñu suñu jot daanaka fa lay des loolu nag war nañ ci am responsabilité seetaat ci bu baax ndax léeg-léeg ñu yàq ci daanaka àdduna nit ci benn benn xibaar boo xam ni euh, ni ñu koy jàllale wala ni ñuy gaawantoo jàllale ko wala léeg-léeg nit commenté ak ak it di saaga saaga yoo xam ni léeg-léeg surtout ci wàllu commentaire bi da gis nit ku jóg maanaam di wax dara rek nit jóg maanaam jaar fu bon loolu Euh, te lii la koy may daanaka da ngay nekk ci sa kër nekk sa téléphone mu leer la ni nit ki du mën a jege doo doo am euh, euh, du am woyefu ñëw jege si la wala boog gisante bi du yomb ndax tey jii bu dee yaa ngi Italie di commenter nouvelle bu nekk senegal di koy commenter dafa yomb lool loolu nag dafa dafa mat a bàyyi xel ñu xam ni doomu aadama dafa nekk lu sacré tey jii nit balaa muy jóg di ko juger wala balaa muy jóg di ko di ko di di di di di di di di yàq ay der war nañu xoolaat bu baax li nga xam ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy jëmm doomu aadama ñu doog a nag seetaat euh, euh, sunu sunu nekkin tey jii daal loolu bokkoon na ci li nga xam ni moom lañu bëggoon ubbee di ziar mbokk yépp nag di leen euh, di leen bége bu baax di di di di di sant yàlla euh, bi ñu dellu si waatee waaye it euh, di di ziar suñu mbokk yi nga xam ni euh, ñoo nekkee fii ci Italie di mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo ñoom ñoo jiite fédération kuréelu bésu xasida ndax ñëpp xam nañ ni samedi bii ñu jëm di la set incha allah fële ca Malpensa fiera bu Malpensa. ci la ñuy def li nga xamni modi bésu xaside yi nga xamni at mu jot dañ koy amal fi ci Italie di ko bokk ak waa Europe euh tey jii nga xam bésu xaside boobu dem na ba nga xam ni mën naa ni moo nekk référence su adduna bi yëpp ndax tey jii bu ñu demee ba adduna bi yëpp daanaka foo dem bésu xasida da nga euh euh fii la tàmbalee ci Italie loolu nag. ñu koy sante yàlla euh, di ci sant ñi nga xam ni ñoo ño ñoo nekk ci kaw euh, bu ñu tuddee Baye Sam Diop rek mel na ni tudd nañ ñëpp waaye it euh, di di ci wootewaat niñ ko niñ ko tàmm di defee ak mu jot rek ndax bés boobu nekk na bés boo xam ni bés bu am solo la dañ ciy daje daanaka adduna bi yëpp moon Europe di ci daje ñu ci am ay ay ay waxtaan kuréel yi kuréelu Italie yëpp ak kuréelu Europe yi Euh, ñëw ku ci nekk def sa prestation waaye jaxasoo biñ ci am bés boobu moo am solo daanaka nga xam ni euh, daayira yi fu nekk la ñu jógee gone yi euh, bu ñu ñëwee dinañ am ay plateau yoo xam ni dafay am ay waxtaan ay borom xam-xam di jóge fu ne loolu bu yegsee day jaadu ñu fàttaliwaat ko mbokki taalibe yi te di ci ñaax mbokk yi ak soxna yi nga xam ni tout tànk Euh, euh, ñi jóge fu ne euh, ba bés boobu bés bu ñu dajeewaatee mu nekk bés boo xam ni la ko taxoon a jóg ñu ñu ñu ñu loolu rek fas ñoo yéenee daje mu di dundal ñi nga xam ni moo di xasida ak diine ndax bés boobu de mën naa ni bés boobu rek ngay gis fii ci itali ñu koy def suba ba ngoon doo dégg daanaka ñu gërëm ci Masamba wala gërëm ci Mademba xasida rek ak alxuraan loolu nekk lu am solo loo xam ni defe naa ni saa su ne euh, ku nekk war ngaa ñaan euh, bu la fekkee fii euh, nga dem fekke ji bés bu mel noonu mbooloo mi nag moom ni muy ni muy excès dafa yéeme ndax la koy la koy la koy la koy teewee defe naa ni lim gi mëne su wax wax mu mel ni événement yooyu tey jii boo jël ci Italie mën naa ni euh, bésu xasidaak 8 juin euh, euh, yooyu rek nga fi gis mu toll ci ampleur bu mel noonu ak mbooloo toll noonu di daje <coughs> ñu amaat ci beneen tawfeex ndax it bés bu mel noonu ngay gis tey jii boo xoolee Sénégal sëñ Amsa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ay bés keroog. gis ngeen bisu xasida ba la fay nekk ci force de l'ordre la fay nekk ci sécurité la nekk ci logistique waaye ñun ñu am taw tawféexu di organiser bés yu mel noonu daanaka euh, euh, la nga fay gis ci volonté bu ñu ñëwee daanaka dañuy def patrouillement rek la fa nekk ci service d'ordre la fa nekk ci logistique sécurité maanaam wàllu taxawu lépp ay mbokki taalibe ñoo koy def loolu Euh, euh, euh, maanaam sant yàlla la rek mu munu warut mun munta weesu doon ndax tey jii man gëm naa ni jaaxal na tubaab ndax daaw bañ ko defee fii ci toskaana dëkk bi di Livorno ci palam man Modigliano bi la fi ñëw ci mbooloo ak la fa nekkoon ci sécurité maanaam Toscana daf leen jaaxal amul benn débordement bu fa am nga gis Euh, nit ku ñu la nii lii kat la mu taxaw na mu def euh, baaxul wala ñu ñëw clamé ñu xëy na yenn problème yi yenn rek la ñuy wax lu mel ni ay euh, parking yu bon ndax xam ñëpp xam nañ sénégalais yi dañoo feex dañuy gis sénégalais bu ñu ñëwee fu gën a jege rek lu ñuy bëgg di par parqué jaare loolu it ñu ci ñaax mbokki taalibe yi ndax boo ñëwee ci bés bëgg fa jariñoo wax dëgg fa yàlla war ngaa góorgóorlu ba doo fa yóbbu benn aq aq bi nag moo di tey jii euh, boo yegsee euh, foo xam ni da fa faa fas yéene yendu wala nga def fa lu ëpp ñaari waxtu wala ñeenti waxtu wax dëgg fa yàlla boo ñëwee war ngaa seet fu baax foo teg sa oto dugal ko ba nga xam ni doo daare nooya ñay organisé doo daare nooya commune ba nga xam ni ñoom ñoom ñoom la ñuy ndax it euh, wax dëgg fa yàlla dañuy organisé dem ci dëkk waru waa dëkk bi war ñu ñëw jëppi ñàkk jëpp bi nag moo di ñu def fa loo xam ni buñ fa jógee du ñu ne ay cay ay acum ñi daal moom moom moom yàlla buñ fi ñëwati loolu nag niñ koy mun a defee mooy ci ay comportement ci taxawin ak it euh, ci sunu ci sunu nekkin ba nga xam ni buñ fa jógee tubaab yi kat danañ ñi ñii kat euh, euh, communauté bu exemplaire lañ ku ci nekk am nga ci responsabilité képp ku ci nekk am nga responsabilité tey jii boo xoolee. comité d'organisation bi daanaka at dañuy nekk di organiser di wàcc di wàcc ci wàllu ci wàllu addiyee di wàcc ci wàllu commission bu nekk yor transport ñor togg yi yor culturel ku ci nekk yaa ngi maanaam atub lëmm dañuy nekk di di di di di di di sottante xalaat di xool maanaam ban ban ba nan moo gën a rafet ba ba bés bi bu ñu demee bés bi taxaw kon tey jii gëm naa ni benn nit warul toog ba bés bi jot tey jii mu ñëw ci bés bi bëgg a yàq bés bi euh, ah, loolu de bu ko defee daanaka dana doon lu yéeme ndax euh, euh, ña nga xam ni daanaka atub lëmm ña ngay waxtaan bu ñu ñëwee boo yegsee ñu ne la sëñ bi toogal nii wax dëgg fa yàlla da ngaa war a toog am ak dal waaye nag boo ñëwee fekk ay nit organisé ba pare nga ni man lu ma neex laay def su boobaa nag daanaka yow yaay yaay indi yaay bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy yàq bés bi waaye waa waa ñooy moom. la ñu war a def yëpp def nañ ko kon nañu xam ni euh, le sept la incha allah mu di samedi bii ñu jëm euh, euh, rajo Xassida online nag nam ko daan defee at mu jot dana fa teew organiser fa ay plateau xam naa ni ñi ngay ñi ngi ziar sunu sunu sunu sunu jëwriñ sëñ Moustapha Diakhaté sëñ Moustapha Kamal ñu koy ziar bu baax danañ fa def ay waxtaan dinañu waxtaan ci wàllu immigration te day nekk toujours. lii nga xam ni moo di occasion pour taalibe yi di gisante ndax léeg-léeg ndeysaan euh, euh, da ngay ñëw foofu gars yi bu la gisee wala ñu dégg sa kàddu ku nekk day day ñëw di di di di di rafetlu suñu taxawaay di di def ay ñaan euh, incha allah dinañu dinañu ànd ak suñu technicien Modou Mbaye defe naa sëñ Ablaye Diobit moom nam ko daan defee at mu jot rek sëñ mbargu gars yi ñëpp rek dinañu ñëw vraiment taxaw ci bés bi ànd koog kuréelu xasida yi ñu nit ñu fas koo yéene ànd ak sunu sunu sunu mbokk yi nga xam ni ñooy jóge Toscana niñ koy defee at mu jot euh, ànd kook ñoom ànd ak tout tànk yi vraiment mu nekk bés boo xam ni euh, bésub bésub cant la bésub mbégte la ndax euh, bés bu mel noonu vraiment yombuta am ñu ci ànd nag ak li nga xam ni moo di jëwriñ gi nga xam ni moom la sëñ Muntaxa di yónni ndax at mu jot bañ ko tàmmee def ba léegi ki fi teewal Serigne Touba dafay yabal délégation mu ñëw teewee bés bi euh, jël fa kàddu euh, ànd ak ñun ba bés bi jeex mu ñaanal ñu euh, delluwaat ba déwén ak jàmm kon daal bésu xasida yaa ngi noonu defe naa ni naa ni du ñàkk ku ci mel ni sëñ Ibrahima Mbaye ak mbokk yi nga xam ni ñoom la ñuy àndal saa su ne rek. Euh, ku ci bëgg a mm, dugg tam joxe ci sa kàddu vraiment ñu ngi ziar bu baax sëñ Ibrahima Cissé euh, ak mbokk yi nga xam ne rek ñoom ñoo ñoo jiite ñoo ŋànk euh, liggéey bi yëpp waaye tam saasu bés bi ñëwee mënee suta bañ a fàttaliku ki nga xam ni moo di suñu jëwriñ ji nga xam ni moom lañ daan àndal ci ci liggéey bi mu di sëñ naat xasida ndax de bés bi de daan na ko dund dundin woo xam ni ku ko xamoon bés bi bu ñëwee bu jotee di nga ko fàttali di nga ko ku ci euh, euh, euh, maanaam xaside yi mu daan yi mu daan séddale maanaam bésub lëmm day taxaw ak foo ko gis fu mu daanoom fu fu fu yaramam tàngee daanaka mu yuuxu wala mu jooy kon tey jii bés yi bés bés yu toll nii bu jotatee maanaam rawatina nag ñu koy def ci dëkkam boobu di di Milano Lombardi mu ne suta fàttaliku jëmu jooju jëmu ju tedd jooju di sëriñ Naar ñëpp xamee ko woon sëñ naar xasida di ñaanal suñu borom euh, fële mu tëdd ca bàqee sëriñ tubaa baddil ko loo xam ni euh, euh, te rafet nañ ci njort ndax fii de liggéey na fi loo xam ni ci xasida yi bu ko xasida yi fayee suñu xel dana dal kon it mbokk yi moment la boo xam ni ku fa ñëw rek ñu ngi yalwaan ñu defal ko fa ay dog defal ko ay ñaan ci barke xasida yi Eh, eh, kooku di sunu sunu mbokk xam naa rek sëñ Modou Mbaye su amee mbokk yoo xam ni bëgg nañ dugg tey defe naa ni moom eh, li ñu bëgg a waxtaanee viste ko man rek maa fi nekk ndax tey sëñ Pape dafa joxe njëgal yaram bi xawoon na sutante xam naa ni rek daa daa daa daa xaw a sonn ndax tey jamono ji bari na. lii nga xam ni moo di euh, grippe bi bari na fi lool euh, ku jël daanaka moom ku pare jox sa morom ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex euh, di ko xaarit ci bisu xasida yi ndax xam naa ni danañu am occasion def fa ay plateau yoo xam ni incha allah ci ci émigration bi ndax jamono yi ñëpp gis nañ sunum réew mi taxaw bi mu taxaw. Eh, eh, kenn xamagul ci ci ban waxtu ci ban eh, doxin la ñuy dox ndax ñëpp gis nañ ni jamono ji gouvernement bi fi nekk kenn mënu la wax ban xeet la ñi ngi ñi ngi rumandaat ñii di wax ni ñi ngi waaj a maye këyit ñii ñi ngi wax ni bari na ñu ma woo di wax ni <laughs> am na décret bu ñuy waaj a génne waaye du lenn lu ñu leen mën a wax ndax gouvernement bi amagul stabilité boo xam ni war naa mën a taxaw ba ba teg projet de loi boo xam ni pour euh, pour def sanatoria la rawatina boo leen xoolee jamono jee rek secrétaire u PDP di Zingaretti mi ngi proposé pour ñu dugalaat loi bi nga xam ni moo di ius soli waaye kii di euh, Di Maio daf ko gàntu ni ko am nañ yeneen priorité euh, jamono ji moom daanaka ñu jëm ci fin d'année xam naa ni Euh, euh, wàllu wàllu loi moom wala wàllu directive mën naa ni daanaka dara amugu ci euh, lu ñuy mën a mm, jox mu di mu di ay xel ci ay mm, ay taxawin rek moo di lenn loo xam ni moo fi soppeeku woon mu di enseignement familial yi jëmoon ci li nga xam ni léegi dañ koy def pratique online ma gis daanaka ñun suñu boor yi ñu am citadinante yëpp daanaka dañoo bloqué seen i demande te seen doom yi nekk fële ndax boo xoolee daanaka lu ci bari euh, dañuy demande benn système fii ni da nga war a déclarer say njaboot fële ci sa stato di familia fële ci ambassade ba comme aire euh, maanaam euh, signé leen déclarer ñëpp ba nga xam ni tey jii boo jëlee sa stato di familia boo ko dugalee fii danañ ko gis mais lu ci bari daanaka boo xoolee. ñu ko dugalagum fi mu ne nii dañ leen a suspendre joxaguñ leen ko euh, euh, li ko waral tamit euh, lu ci bari la mooy ñëpp xam na nañ ni si jamono ji dañoo nekk ci ay jafe-jafe ndax ba ñu dugalee loolu nga xam ni moo di reddito di cittadinanza ba ñu bari dugal ci dafa nekk daanaka benn buuko boo xam ni pour ñu combler ko dafa doy moo tax boo xoolee daanaka liggéeykat yi mën naa ni daanaka ci ñoom la ñu jëlee xaalis bi pour. pour avancer première six mois yi moo tax euh, daanaka juróom-benn weer yu njëkk bañ ko fayee ba pare lu ci ëpp daanaka dañ ko hmm, dañoo bloqué bloqué euh, carte yi euh, imposer la nga def lii nga xam ni moo di ajournement bari na sénégalais yoo xam ni commencé woon nañ ko fayeku ñu dem ba ci digg bi ñu arrêté leen mais lu ci ëpp daanaka boo xoolee ñu ci bari répressionnaire nañ ñu paiement yi ndax ñi ko xam dafa am lii nga xam ni benn. benn codice bu ñu lay yónnee par message boobu nga war a euh, ubbi taal link bi euh, ajourné ko def euh, def mu am ay question yu lay laaj nga tontu ci am na aussi ñeneen ñoo xam ni dañ leen di laajaale ñu indaale lii nga xam ni moo di certificat buy wane ni seen dëkk amuñu fa ay bien yooyu. boo ko defee daanaka dañuy repristinar waat euh, li nga xam ne moo di rédito di cittadinanza bi même am na tam ay mbokk yi nga xam ni yàlla dafa dogal bi ñu dugalee ci rédito di cittadinanza bi ñu ci bari dañoo yaakaar ne xeetu sayar yi da ngay ñëw rek ñu jox la li nga xam ni moo di euh, euh, maanaam di la di la charger sa sa sa sa sa sa sa sa carte chaque weer maanaam le maximum fekk ne lu ci ëpp boo defee Reddito-di Cittadinanza bi dañuy calculer li nga xam ni moom la sa waa kër euh, euh, di am bu ñu xoolee revenu boobu yëpp différence bi nga xam ni moom mooy manqué moom lañ lay compléter ba da ngay sax am na ñoo xam ni seen carte ay quatre-vingts euros lañ ciy chargé ñii ñu leen di chargé ay cent euros ñii ñuy chargé deux cent euros ba sax am na ñoo xam ne ay quarante euros lañ leen di chargé euh, loolu dafay wane ni par exemple parce que tey jii. Euh, euh, seer dafay yaakaar ni bu dëkkeek Cheikh Mbacké dëkk ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk yow da ngay amee sa sa di de familia boo leen diviser wul statut de familia yi ci ci ci anagraphe bi yéen ñëpp la ñuy boole mooy tax léeg-léeg boo demee di defar ISÉ da ngay gis componente familiale bi ñoom ñëpp la ñuy dugal ci ISÉ bi tey jii bu fekkee seer liggéeyul. Cheikh Mbacke di liggéey am rédito am kudd euh, euh, vingt cinq mille wala vingt huit mille euh, Modou Gueye nekk ci kër gi moom it am kudd trent mille keneen keneen loolu buñ ko boolee daanaka buñ leen ko diviser pour nit ki mën a am maanaam ñu mën ko dugal ci statut di povertà dafay nekk lu jafe loolu nag sénégalais duñ ko comprendre lu ci bari dañuy gis mag mu nekk ci benn kër ndeysaan donte liggéeyul néew doole nekk ak ay gone gone yi di liggéey di def lépp seen poche Euh, tubaab bi moom bu demee ba xool nucléaire familial bi day jël euh, day globale li nga xam ni moom la waa kër gi di gagné mu dugal ko mu dugal ko ci ci ci ci ci ci ci ci biir euh, nucléaire familial bi mooy dem diviser ko buñ ko diviser nag mooy waral léeg-léeg <coughs> nit du liggéey waaye du mën a am benn ndimbal ndax it ñamu dëkkal ña ngay ña ngay liggéey te yàlla defal na leen sutura ba lépp lu nit war a am pour nekk ci nekk nekk ci ak dal ñooñu dañ koy am loolu mooy tax léeg-léeg du ñuy du ñuy mën a am kon nañu xam dañ ko xamee noonu léeg-léeg mbokk yi xam ni buñ la bañalee hmm, reddito di cittadinanza bi euh, du yow lañ ko bañal mais sa situation familiale moo tax ñu bañal la ko ndax boo dëkkee ak ay nit yoo xam ni euh, ku ci nekk mi ngi liggéey di def maanaam daanaka dix heures wala lu ko ëpp tey jii vraiment euh, boo buggee wax ni kër googu pauvreté am na fa dafay dafay dafay xaw a doy loolu même jigéen ñi sax <laughs> dañuy am problème boobu dañuy gis soxna yi ndeysaan ni ñu ni ñu miinee euh, xeetu bonus yooyu waaye lu ci ëpp léeg-léeg da gis borom kër gi ndeysaan donte sax euh, moom ak soxna si ñooy dëkk nga xam ni ñoom ñaar bu ñu dëkkoon ak seeni doom doon nañu mun a am ndimbal yooyu yëpp waaye dañuy bëgg di amortir coût affecto bi. jël ñeneen nit dugal leen ci biir résidence su kër gi nga xam ni ñooñu dañuy liggéey di def seen poos euh, euh, tey jii boo demee ba am yow sa njaboot sa njaboot wala a dem jàngi école nga xam ni tey jii bu fekkonte ni yéen seen nucléaire familial rek ñoo fa nekk ngeen am ISE boo xam ni di nga mën a am ay agevolation ne ci xeetu asile looy nii doy wala bokk euh, maanaam ci transport wala wala leneen lu jëm ci njàngum xale yi mais doo ko mën a am. ndax tey jii cent euro ba kee di fay ci luyaas bi euh, dafay dem ba daanaka moom mooy yàq lépp parce que euh, donte cent euro lay lay jugal ci luyaas bi euh, waaye boo ko xoolee la muy am moom rédito pro dafay dugaat ci sa rédito borom kër ba nga xam ni daanaka dafay influer ba doot duñ la mun a nangu yooyu nañ ci nañ ciy bàyyi xel bu baax di fàttali itam sunu mbokk yi liggéeykat yi nga xam ni ñooy liggéey ci tool yi. Euh, mooy euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci secteur agricole bi euh, te te yor lu ci ëpp daanaka ñu ci bari ay stagionnaire lañ ñu waajal seen këyit yi ndax en général bu ñu duggee ci premier janvier rek ci la ñuy mën a dugal li nga xam ni moo di disoccupation agricole ndax disoccupation agricole moom bokkul ak NASPI normale boobu yaa ngi koy mën a dugal ci ñetti weer yi nga xam ni moo di premier janvier ba 31 mars bari na ñoo xam ni tey jii. Euh, jamono ji bu bu bu bu tool yi jeexee rek dañuy daw dem Sénégal léeg ñu yàgg fa waaye ñu ci ëpp léeg-léeg dañuy am jafe-jafe man léeg damay damay am problème damay gis nit ñoo xam ne dañuy dem ba ay avril wala ñu toog ba ay dernière semaine u mars ñuy daw si di ñëw euh, wara a buuxante pour lijjanti li nga xam ni moo di disoccupation agricole bi euh, nekk di wuti kayit te fekk ne par exemple yow liggéey bi boo ko xasee def ba pare Euh, ba sa yëpp pare war nga mun a waajal sa bopp maanaam préparer say busta paga xool it wut set contrat bi ndax baax na ndax lu ci ëpp léeg-léeg euh, euh, da ngay gis ñu am problème boobu da gis ku liggéey juróom benn weer ñëw ba ba ba ñu war a dugal disoccupation bi su ma demee ba def strato compte IMSI damay gis ay weer lañ koy lañ koy lañ koy mettre à posto contrat weer lay am wala weer ak genn wàll daanaka du du mën a mat jornaata yi nga xam ne ottante jorne wala centu jorne yi nga xam ni moo koy permettre mu mun a mu mun a am disoccupation ne loolu nag dang koy teel lijjanti nga xam ni tey jii bu fekkee nit ki mi ngi lay fay nga fexe ba lii nga xam ni moo di euh, modèle la UNILAV bi parce que mën nañ la bindal contrat nii contrat boo xam ni tey ji nit ki de ñoom des fois dañuy dem ci commercialiste rek ñu bindal ne la defal naa la contrat defal la contrat six mois boo xam ni daanaka du ko déclaré tey jii Euh, waaye bu fekkente ni am nga lii nga xam ni moo di modèle la Unilav bi boo ko amee ba pare jóge fa doo ci doo ci yem da ngay ñëw ci li nga xam ni moo di patronato ñu defal la extracto conto boo amee extracto conto bi ba gis li nga xam ni tey jii euh, moom la la fayal war nga mun a delluwaat ci moom ndax euh, jo maanaam maanaam monde agriculture bi Euh, mën na ko modifier bu fekkente ni la lam la fayal dafa tuuti war nga mën a dem ci moom presque euh, bu jaree sax nga menacé ko menacé ko ni ko xamal ni ko carrément boo boo yoree busto paaga yi boo ma boo ma boo ma fayalul contributeur yi mat dama lay dénoncé su boobaa ah, euh, dana la fayal dana dana la mën a dana mën a dem ci commercialiste bi mu modifier journée yi ba nga xam ni di nga mën a am di nga mën a am disoccupation agricole bi ma ci ma ci ma ci ma leen ciy fàttale rek ni leen ni ñuy éviter aussi Euh, euh, euh, bu ñuy dugal disoccupation agricole yi ñuy éviter di jël détraction yi ñu ci bari bu fekkente ni dañuy def set trente jarul ñuy ñu ñu ñu ñu ñu dugal détraction ne loolu day waral tey jii bu fekkente ni dañ la ko fay ñaari yoon da ngay dem ba da am problème te fekk ne bu fekkente ni da ngay dugal cette trente di nga mun a récupérer yooyu yëpp nga xam ni daanaka ci mois de avril bi lay commencer. Euh, ak sa kuréel yooyu yëpp nga nga mën a dugal code fiscal njabooti defe naa ni daal euh, jamono ji loolu moo fi nekk ci loo xam ni mënees na ko <coughs> mënees na ko euh, baaxee mbokki mbokki taalibe yi di di xamal tamit ñi nga xam ni ñoo dugaloon cittadinanza weer bi dafa mel ni ak ministre bu bees bi yëf yi commencé na am coppite ndax wax dëgg fa yàlla man de eh, jamono ji Euh, am na ñu ma doon suivre personnellement gis naa ak soppite bu bari ndax euh, ñun suñu province bi rek euh, weer bi li ñu li ñu délivrer ci ay cittadinanza yoo xam ni daanaka sax matul matul matul day romb tuuti ñaari at rek kenn xamul nu mu toll mu mel ni kon ministre Mor Dione bi nga xam ni ministre bu bees bi am na coppite xëy na ay directives yu mu jox préfecture yi ba ba mel na ni yii fi mi ngi commencé soppeeku waaye ñu éviter it di daw di dem ci avocat yi ndax euh, cittadinanza euh, maanaam du du loi boo xam ni dañ lay wax ni la boo matale lii da ngay am nga droit par force concession la boo xam ni président de la république moom moo koy signé moo la koy jox te bu la koy jox da koy joxe ci coobareem selon li ko euh, ministère ak questura di wax ni ko kii kat am nañ yaakaar ni ku jub am nañ yaakaar ni def na percorso bi nga xam ni moom la citoyen yi war a def yëpp matal na ko kon war nga ko mun a jox mu signer la décret jox la ko moom lay neex mu jox ko waaye da ngay gis lu ci ëpp da ngay gis sénégalais yi léeg-léeg bu ñu rombee eh, ñaari at rek commencé nañu jaabante ci avocat yi di fay ay xaalis maanaam avocat yi nekk ci parce que avocat moom du la ni mukk mënuma heure boo ñëwee ni ko dama bëgg sama kii mun a la mu a la kaay Euh, euh, laaj la nangam nga def ci loo xam ni daanaka sa droit la mi ngi ci benn parcours boo xam ni amul lenn lenn lenn lenn loo xam ni maanaam lu ko gàllankoor la ngay fayaat pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu maanaam ñu ñu lijjanti se mbir loolu dafay niroog euh, daanaka jëfi ku xay di ndax sa droit moom boo ci bëggee fay nit pour mu pour mu pour mu defaral la yëf vraiment dafa nekk loo xam ni war nañ ko seetaat euh, beneen biit it euh, defe naa ni tey jii moom mooy euh, li nga xam ni moom laa bëgg tëjee mu di wàllu ñi nga xam ni moo di tout tànk yi jot na vraiment ñu xalaataat seen wàllu nekkin fii ak sunu taxawaay ñun ñi nga xam ni ñoo fi njaboot ci ci ci ci ci ci tout tànk yi ndax vraiment gis naa euh, euh, ay dëkk yoo xam ni mën naa ni euh, la fa xew doy na waar du ñëpp nag ndax tey jii dangay xool daanaka juróomi at fukki at yu mujj yi mën naa ni reconjunimento yi ni ñu koy defee dafa yéeme waaye daanaka mën naa ni lu ci ëpp te jii boo xoolee amul benn bu ñu def def ko ci projet waaw projet nag mooy loo xam ni. donc koy waajal mu am ay finalité euh, lu ci ëpp daanaka euh, euh, dañu ne la ruée vers l'Italie indi indi buuxante rek indi njaboot gi gaawantu balaa ñuy am 18 ans bu ñu ñëwee daanaka duñu leen du ñu am sens de l'orientation maanaam lu ñu def gaawal gaaw leen lijjanti ñu xool ñu ñu ñu ñu dugg wut liggéey formation ba ñu waroon am taxawu ba ñu waroon am waajal ba ñu waroon am daanaka duñ ci am dara loolu mooy waral daanaka léeg-léeg déception yi famille di am ci ci ci ci ci ci ci immigration italienne bi bari te it nag mën naa ni commencé gul ndax boo xoolee daanaka ñu ci bari jamono ji mm, dañoo indi seeni seeni seeni doom indi leen à lage de seize dix-sept ans léeg-léeg sax da ngay gis ko indi doomam boo am dix-huit ans mu wàññil ko ati euh, euh, gone yi parcours ba ñu waroon def dëgg-dëgg daanaka duñ ci def dara euh, du ñu am taxaw ba ca war euh, mu mel ni sax boo xoolee gone yi nga xam ni ñooy juddoo fii ñoom ñooy ëpp demin ñanga xam ni bu euh, ñu leen taxaw tuuti ña nga xam ni dañoo ñëw loolu nag vraiment war nañ ci commencé di waxtaan ci ci ci ci bésu diine yi ci association yi ba nga xam ni tey jii dafay nekk benn sfida boo xam ni maanaam at yi di ñëw moom la ñu war a war a taxaw euh, maa ngi koy wax de euh, ñun de suñu immigration bu njëkk dafa nekkoon une immigration euh, maanaam ja jaay maanaam jaay ci géej gi xalaatuñu woon jàng bu waaye bu ñu demee nag ba ba wax dëgg fa yàlla njaboot gi ñëw fekk si ñu war nañu mun a toog nag commencer produire une immigration de qualité qualité bi mooy. Euh, meññeent yi nga xam ne ñoo fi génn wala ñi nga xam ni dañ leen di indi ñu indi leen ci xel mu dal indi leen ci projet waajal leen investir ci ñoom ndax it euh, euh, mënoo am résultat sans nga def investissement te investissement maanaam xaalis moo koy def maanaam ressource tey jii mënoo bëgg am un avocat te defoo ci moom xaalis mënoo bëgg am tey jii un docteur. wala wala wala lu mu mënti doon te defoo ci moom xaalis maanaam wàllu yar wàllum njàng maanaam investissement boobu dafa nekk investissement boo xam ne investissement bu yaatu la euh, ku ci nekk da ci am wàll loolu nag defe naa ni euh, war nañ di ci di ci xalaat saa su ne du du doy euh, du mat ku ci nekk tey jii man dama gëm ni fu ñu waxtaanee waxtu ci ci ci ci ci ci ci ci immigration wala daayira war nañ cee ñambaas benn fukki minute wala benn juróomi minute ci njaboot gi diggante bi nga xam ni moom lay yaay am mu di responsabilité góor ñi responsabilité bi ñu am euh, euh, ak xale yi di leen di leen di waxtaan ak ñoom di communiquer ak ñoom ba ñu xamit ñoomit lan moo lan lan lan lan mooy seen rôle parce que ku ci nekk tey jii boo xamee rôle bi nga am yaakaar naa ni euh, communication bi dafay yomb. waaye bu fekkente ni tey jii euh, jigéen ñi moom yaakaar nañ ni bu ñu ñëwee euh, lu ñu war a def mooy lijjanti ba am ab liggéey euh, dem xëy liggéey waajuri góor yi ñoom it ñoom liggéey leen war bu ñu xëyee xëy dem liggéey ñu ne nu ñuy def gone yi nañ leen yóbbu ñi fi mënta ñàkk nekk nañ leen di yóbbu école ñu dem ak ñëw rek bu ñuy xëy di dem di ñëw daanaka ñu xool ndax école bi ñi ngi am une scolarité de qualité scolarité de qualité mooy xale bi bu wàccee nga xool ay computéem ubbi jaariyom xool tey jii professeur ban communication la def boo amee argot bi nga scaricare ko ci téléphone bi ndax tey jii technologie dafa dem ba nga xam ni sa doom même bu jàngee bu demul classe war nga mën a toog xam ni sa doom jàngul da ngay ubbi argo bi benn benn software la boo xam ni boo demee école bi dañ la koy jox buñ la ko joxee nga dugal nga dugal crédential yi dugal sa bos nga xam ni mooy pour parents yi di nga mën a xam notu xale bi di nga mën a xam xale bi xale bi tey jii bu demoon xuloog prof bi wala xuloog maestra bi maestra bi bu ñëwee da lay bindal causé succès su oji di nga ko mën a lire yombul nag ndax du ñëpp ko mën léeg-léeg euh, morom sayar yi xam nga ni léeg-léeg bu ñu jàngul day jafe ñu am ko waaye dama gëm ni tey jii euh, association yi dañu war a am rôle relais tey jii di créer ay ay ay centre yi nga xam ni xale yi bu ñu wàccee dañ fay daje moo am ay volontaires sénégalais yoo xam ni dañuy toog di xool xale yi euh, ñi njëkk a ñi njëkk a njëkk a ñëw ci dëkk bi nekk ay mag ci biir ndax it tey jii boo xoolee gone yi am na foo xam ne bu ñu fa demee léeg-léeg suivre leen day jafe waaye ña nga xam ne ñooy mag ñi commencé dem ba fréquenté supérieur dinañu war a mun a taxaw xool seeni rakk xool tey jii ñoom euh, fa ñu jaaroon gone yi accompagner leen. Euh, di leen orienté tey jii da ngay xool xale yi am na benn moment boo xam ne bu ñu fa tolloo lii mel ni terse média xale xal ñu war a jël ay décision yoo xam ne mën naa ni ci décision yooyu la seen futur dépendre xale bi war a dem première année supérieure war a tànn ban lycée la war a jël bu dee xale bu jàmbaar ci wàllu littérature mun nga ko dugal linguistique bu dee ku jàmbaar ci wàllu technique mën nga ko dugal ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ba ni ñuy dugalee ci wàllu jigéen ñi nga gis jigéen ñi nga xam ni dañuy dem defi euh, euh, Albert Guero wala wala wala wala opéra euh, opéra socio opératrice socio-sanitario nga xam ni bu ci nekk dafa am njëriñ ci ci ci ci ci société bi waaye nag. day day day dafay dafay am njariñ ci kaw ñu xam valeuru maanaam ni li gone gi di defi tey ji war ko ci mën a taxaw euh, euh, euh, matériels yi ci war ndax ñëpp xam nañ ni xale yi bu ñu duggee maanaam média supérieur tey jii da ngay dem ba livre dina la at bi rek benn benn xale dana coûter presque quatre cent cinq cent oh. euros looloo waral gars yi daanaka ñu ci bari tey jii gëm ñi dañ lay taxaw di la wax ni la école Italie baaxul man sama doom du ma fi jàng ndax tey jii italien fii rek lañ koy wax loolu waxu waxu waxu nit ku daanu ci ten la ndax tey jii boo xoolee ci àdduna bi mën naa ni scientifique yi gën a mag mën naa ni Italie lañuy ñuy bàyyi école yi gën a mag bokk na ci Italie fii ay université nga xam ni doomu Amérique yi Euh, euh, ba ba xeetu sax ay Chine Japon man fii ma dëkk di Toscana nga xam ni université yu Firenze yi boo fa demee mais xeetu nit ku nekk nga fay fekk euh, loolu dara waralu ko lu dul ñëw jël si xam-xam ngeen xool histoire adduna bi tey jii fii di itali empire romain lan la contribuer ci histoire adduna bi loolu tey jii boo bëggee yow am opportunité nekk fii ba pare di wax ni sama doom du fi jàngee kooku defee naa ni dafa bëggul njëriñu doomam te man dama gëm ni nit ku nekk da ngaa war a ñaan sa njaboot gën la sa njaboot gën la nag pour nga mën mën a def ba mu gën la da nga war a investir lu say waajur deful ci ñoom te tey jii boo xoolee ñun ñii ñëpp ku ci nekk euh, sa waajur la mu daan am mën naa ni yow ñetti yoon ngay am bu sa waajur taxawoo euh, ba def ci yow alxuraan moo xam alxuraan la wala mu def ci yow ba nga am sax sagarul sagaru lijaasa boo xam ni tey jii da koy tiitaroo moo xam BFM la moo xam bac la moo xam licence moo xam lu mu munti doon sa waajur woo ko def ca Sénégal boo demee xool euh, euh, bu dee am na cinq cent mille CFA jàmbaar la bariwul ñu ko fa am tey jii yow nga ñëw nekk ci dëkk bi daanaka koo fi xool salaire am romb na un million jëm kaw ñeme euh, te amul xolu jël li nga xam ni moom la ko yàlla may yu dol delloowaat ko ci njabootam ba nga xam ni tey jii ci wàllu xam-xam ci wàllu ci wàllu colin ci wàllu dundin ci wàllu nekkin ak it ci yar ndax tey jii euh, euh, euh, sa njaboot nga jël leen teg leen sa wet ñu dund ak yow ñiin la xam la nga dund diine nag àndi ceek ñoom defe naa ni sa njaboot bu ñu màggee dinañu doon exemplarité donte yàlla tam mooy yar waaye boo defee sa warugar lu bari mën naa mën naa yomb mais nag boo jëlee sa njaboot Euh, tey jii di gagné fi xaliss bu dul jeex délégué len repatrier len Sénégal bu ñu amé seen kéet nga daw yobbu euh, di yonne ay 100000 ak 200000 ah bu ma ni yar wi du baax dé mais euh, di nga ci noter ay point yo xamni ni léeg du la neex lolu moy waral nga gis ku jël domam xalé bi nek ndaw mo xam fi lay judo mu yan yobbu Sénégal tok ba xalé bi deuguer ba ba xaw bay nek majeur mu doog fi indi toog moom ak doomam ñu am ay contre euh, euh, ay ay ay guerre euh, maanaam guerre de intergénération yoo xam ni seeni jikko du miinante duñu du comprendre ndax doom ji du miin waajuram ba nga xam ni tey jii dañuy am ay ay ay ay ay ay maanaam ay xëccoo yoo xam ni ci ci ci ci biir famille bi daanaka moom mooy indi léeg-léeg ay déchirure ak ay déception ci famille loolu nag da fay mata bàyyi xel leg leg ñu xamni leg manam sunu immigration fi nekatul immigration bo xamni immigration stationnelle la immigration structurelle la bo xamni ka nga xamni ni dafa dem ba indi soxnaam dëkk ak soxnaam fi leg leg danaka dana tok sax at tepp du dem Sénégal koku bu bu deful projet ci dëkk bobu defena ni euh euh bëggul bopam ndax it ñak bëgg sa bopp mooy. fa nga nekk munoo fa xalaat investir fa loo xam ni boo faatoo waa dëkk ba dañ la koy fàttalikoo euh, euh, sànq maa ngi tudd sama mbokk be sëñ ñaar nger euh, ñëpp fàttaliku ba mu fi jógee commune ba mu nekk maanaam targa bañ ko jox hommage bañ ko rendre parce que kooku ba muy dund dafa defoon xelam ni fii la nekk lépp lu mu doon def fii la ko def il s'est investi fii ba nga xam ni dañ ko gisoon def ko comme citoyen d'honneur di jox boppam ci protection civile euh, tey jii bu fi njabootam nekkoon orgueil boobu lay am keneen noonu la war a comporté woo tey jii man damaa gëm ni euh, euh, sénégalais war na mën a toog am fii revenu jël xaalis boo xam ni tey jii daf koy daf koy daf koy jël jël jël en bénéficence sa jox ko association sénégalaise bi ni leen nañu seet tey jii ku ko gën a soxla wala xale buy jàngi ñu dugal ko yooyu ay forme de

noonu la ñuy dundee ku ci am xaalis daanaka boo xoolee yow yaakaar nga ni nit ñi da nga leen war di dimbali rek mais doo jël tey ji ay investissement yoo xam ni da nga koy teg maanaam teg loo xam ni tey jii da nga fay def ba nga xam ni nit dana fa war a mën a jaar raw la wala tey jii euh, ay ay ay nit yu bari jaar fa génn doon ay ay ay ay ay nit yu ñu mën a ràññee ci àdduna bi loolu nag tubaab yi dañu ci raw te dañu war di roy ci tubaab yi ci loolu ndax ay jëf yu baax la ay forme de maanaam forme de civisme la yoo xam ni euh, ak ak ak ak ak ak maanaam euh, di liggéeyal euh, sa askan ba nga xam ni tey jii boo fi jógee rek lay ràññee da ngay xool tey jii ñu mel ni ay Steve Jobs ak ñeneen a ñeneen mais buñ la waxee yi ñuy financé da ngay yéemu ci yàlla da ngay ni waa ñii xanaa lu ñor du jeex dañuy jël des milliards et des milliards Bloomberg par exemple léeg-léeg da gis day jël. ay ay ay cinquante millions d'euros jox ko ko benn université ci benn at te daanaka at mu ne dañ koy def nga xam ni loolu euh, euh, euh, daanaka dafay dellusiwaat ci ñoom ndax ci seen wàllu liggéey da gis université bañ koy finance dañuy dem ba maanaam la ñuy financé sax da ngay gis dañ leen di dañ leen di dañ leen di maanaam trouver ay ay ay ay ay ay xeetu. Euh, euh, coppite yoo xam ni euh, dafay dem ba dafay jëriñaat sax ñoom ñoom seenub liggéey loolu nag ñun war nañ ci di mun di jàngat bañ rek mm, di maanaam di liggéey di def di enrichiru sénégalais ñun en personne dañu tàmm maanaam ku ci am xaalis rek daanaka yaakaar nga ni yow sa xaalis Euh, euh, da nga ci war xëy na di jàppale waaye pour nga créer des choses yi nga xam ni euh, nit ñi dafay mën a jariñ askan bi donte mun naa bañ a nekk liggéey mais nekk ay wàllu xeetu école maanaam di di di di jariñ ay ay ay tout tànk nga xam ne ay tout tànk dinañ ci mën a jaar mu nekk tremplin ci ñoom loolu dafa nekk lu am solo loo xam ni lu mat a bàyyi xel la te it nag comme dëkk bi xamaguñu kañ lañ fi jóge wax dëgg fi yàlla. war nañ fi joxe suñu contribution ba waa dëkk bi war ñoo naw ndax man gëm naa ni fukki at yi di ñëw euh, euh, fukki at yi fii ba deux mille vingt cinq deux mille vingt six on a un défi à relever en Italie ñun sénégalais yi nekk fii euh, défi bi moo di dañ fi war a génne meññeenteef bu bees ndax tey jii xeetu ñoom Salvini xeetu ndaw si nekk Rome Fratelli d'Italia Euh, euh, nga xam ni fu ñu taxaw saaga nit ku ñuul wala ñu wax ni ku ñuul lu bon taxaw di wax immigré mooy ñiy jaar ci ndox mi euh, ñooñu ñun mënuñ mënee su leen a tontu mënee su leen a tontu tontu bi dëgg-dëgg moo di génnee fi meññeenteef boo xam ni moom mooy saafara suñu mer nees ku mën a génnee nag mooy samp fi suñu xeet sampin woo xam ni te jii boo demee. ci hôpital yi fekk leen fa ñuy faje nga dem ci tribunal yi fekk leen ñu bokk ci ñiy atté nga dem assemblée fekk fa benn député wala sénat nga fekk fa benn député boo demee ci commissariat yi fekk fa un commissaire wala un policier wala un commandant wala bokk nga dem ci force euh, armée fekk fa un commandant wala un un un un jeune un jeune gradé de l'armée loolu moom mooy tax ñu mën ni ñun ñii bokk nañu ci ci ci communauté bi waaye communauté boo xam ne daanaka boo leen xoolee lu weesul liggéey bi ñun fi ñu nekk yëpp daanaka dañ koy tere euh, euh, euh, boo jëlee sénégalais yi sur cent personnes quarante yi quarante yi daanaka dañuy jaay lu ñuy tere jaay lu ñuy tere nag mi ngi yaatu na mën nga ko dugal ci saaxaan bi mën nga ko jaay mën nga ko jaay mun nga ko wax ci jaay xeetu fals yi mun nga ko mën nga ko sax def ci euh, dem di jaay loo xam ni fa koy teg dañ ko fay tere waaw te doo fay ay taxes loolu euh, mu ne surtout nekk une une une une euh, occuper une place bëgg bëgg ñu respecter ñu ci côté boobu donte mu su ko dindi waaye war nañu mën a toog di xalaat di di di di di di maanaam di xiir sunu njaboot gi nga xam ni moo fi ñëw di investir ci ñoom. tey jii nit ki war naa mën a euh, euh, waxuma ni saaxaan euh, dafay wàcc nit nit ki war naa mën a dugg ndax suñu waajur yi fi njëkk ñëw loolu lañ daan def man mii sama waajur wu jigéen bi bi mu fi ñëw dans les années quatre-vingt-huit ceeb la daan jaay ci ceeb boobu ci la ma indi et j'en suis fier orgueilleux moom laa def ba ñëw ba ligg ba dugg ci si système bi maanaam di ci jàngale ba am tey jii ma nekk ci daanaka système système euh, euh, euh, nekk ci système italien bi fii ma nekk di fa représenter orgueilleusement la communauté du dañ ci am kersa waaye dafa nekk loo xam ni dañ ko war a supéraare dafa war a jàll man dama gëm ni dañ war a nag toog benn jamono nag ni lii doy na lii doy na dañu war a dugg ci phase deux boo xam ni dañu war a prétendre ni ñun kat fii dañ fee def loo xam ni li ñu moom dañ ko war a jël mais nag pour nga war ko mën a jël da nga war a nekk ci yoon ah, di doxal yoon ah, di wax yoon di ko jëf doon exemple ñu mën a jël ci royuwaay ci yow waaye ah, comme na ma ko waxee dimanche bi passé suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk si ngooñ waaye tey jii bu fekkee yow da ngay nem ci géej gi di jaay ay ay ay ay ay ay maanaam ay sac yu ñuy yu ñuy contrefaire wala bok nga nek di jaay ay dal jiin mais sëñ bi mëno taxaw bëgg prétendre ne yow mi société bi daf la wara mëna respecter andul ndax tay ji ñun dafa melni ni ah, suñu mbokk me nga xamni mom lañ mu di député bee ñu japp ko ak xaaliss bu bon même chose la tay ji mëno taxaw ni yow mi parce que ñun ñi dañ tey jii dañu bok ci ñi nga xamni bu ñuy wax ni xet googu ñom ñoo nasaxal euh, économie bi dañ bok and ci ak chinois lool nak waru ñu ko nangu Euh, euh, dafa am phase boo xam ne bu ñu fa tolloo dañu war xool suñu ginnaaw ni ah lii kat bi ñuy doog a ñëw mënaguñu woon làkk bi amaguñu woon ay këyit euh, amaguñu woon fu ñu dëkk stabilité amul lii lañ daan def jaay saxal mais nag jamono ji dama gëm ni dañu war a dépasser cadre boobu tey jii boo demee ba ànd ak sa njaboot indi fi sa njaboot wax dëgg fa yàlla waratul waratuñu taxaw war nañu dépasser cadre boobu commencé nag maanaam génnee yeneen xel yoo xam ni suñu ay njaboot dañ leen war di suuxi ñu commencé di envahir maanaam société bi fépp fu nit war a taxaw ndax ñëpp yamuñu ka gën a suufee ba ci gën a kawe waruñu waruñu tuuti bët tey jii suñu doom yi képp ku ñu xalaat ni am nga potentialité pour pour dem nekk nekk nekk médecin war nañ la mën a war nañ mën a investir ci yow pour pour pour taxaw la ñëw war a mën a féete avocat doon ay avocat ñëw war a mën a nekk ay ingénieur doon ay ingénieur loolu mooy tax ñu mën a compter ci société bi maa ngi siyaar sunu jarbaat Babacar Sall ndeysaan moom it mi ngi def liggéey bu am solo fële ca Brescia euh, avocat la bi mu mi fi nekkee jàng am ay diplôme am waroon mën a nekk ci cabinet di liggéey waaye dafa dellu si waat expérience bi mu am euh, ñu ngi koy wax euh, keroog dimanche bi passé rek delloo si ko euh, communauté am mu nga fa jël euh, gone yi nga xam ni ñoom ñoo nekk euh, Brescia def defe naa association bi mi ngi tudd keppaaru xale yi di leen encadrer leen taxaw ba mën a doon exemple ñu roy ci moom ñu mën a amaat ay yeneen Babacar ak yeneen ñu ko ñu ko ñu loolu noonu la communauté war a war a taxawoo am une vision futuristique boo xam ni tey jii du ñu yem rek ni ñun kat euh, euh, dañu ngi ñaan yàlla maanaam euh, am dara ñibbi xeet maanaam xeetu mentalité boobu waratuñ ko sax di tudd yàlla nañ yàlla defal sutura bañ jàll ba nga demee ba ni sa njaboot lonk nañu ñibbi moom xanaa toog ba doon mag rek ni nañu dem Sénégal xaar fa faatu bu ko yàlla dogalewul fii waaye njaboot gi nga xam ni ñi ngi fi tey jii nekk di jàng wala ñu juddoo fi nga xam ni ñaanuñu yàlla juddoo fi ils n'ont pas choisi de naître ici ñun ñoo ñun ñoo leen ci contrainte parce que ñoo indi seen waajuru jigéen fii euh, euh, euh, dëkk fi yàlla jur fi njaboot kon nag dafay jaadu ñu teg fi ay projet yoo xam ni ëllëg suñu ay njaboot war nañ ci mën a commencer di ci jàpp tàmbale ci benn jëmale nag à l'infini loolu nag euh, euh, xalaat moo koy indi mooy waral tey jii euh, ñu war a mën a sax taxaw suñu bés yi ñu reconnaître ñu ko tey jii bés bu mel ni màggalu tubaa suñuy suñuy culture nga xam ni tey jii bu ñu demoon ba nga xam ni dugg nañu ci société bi lu bari des nañu ko mën a nangul waaye boo xoolee tey jii njàngum alxuraan sax dëkk yu bari dañ koy tere. jumaa dëkk yu bari dañ koy tere li koy waral moo di euh, euh, dañoo amagul doole ci dëkk bi te it fa ñuy dogalee la ñu nekkul te yaakaar naa ni euh, boo nekkul bokkul ca fa ñuy dogalee defe naa ni lu ñu wax waaw rek nga ciy mën a teg doo am loo daal mbokk yi loolu lañ fi indi woon xam naa ni nag moom gars yi dinañ ni tey moom dama nekk di wax rek Euh, ndax it léeg dañuy eh, am yenn xalaat yoo xam ni dañ koy bugg a weccoog yéen waaye léeg euh, temps beeg thème yi moo ko dul maye te yàlla dogal man kenn ma nekk fi nag euh, mu doonoon ay thèmes yoo xam ni vraiment dafa nekkoon sama xel ma ne woon naa ko bokkak ak yéen di xaar xëy na li ñu fi dese bareetul xanaa fukki minute rek moo ci des. Euh, mbokki taalibe yi bu amee ñu bëgg dugg euh, joxe seen xalaat vraiment ndax euh, léeg-léeg ñu ngi ñuy bàyyi xel saa su ne mbokk yi ñi ngi gis ni daanaka ñi nekk ci Facebook bi dafay bari ba ba sax mbokk yi nga xam ne ñooy nekk Sénégal dañuy dañuy topp ñuy ziar bu baax suñu jëwriñ Alaaji Cheikh Mbacké mu nga mbub mi nga xam ni jamono yi mu nga féete Touba nekkoon fa vacances ñu ngi koy ziar bu baax ziar mbokk yi nga xam ni ñu ak ñoom ñooy ñoo nekk fii ci Italie ñu nekk Amérique euh, euh, euh, daanaka mën naa ni rajo xasida moom ak diaspora dañ koy top fu ne di ziar nag sunu sunu sang yi nga xam ni dañuy topp ndax léeg-léeg boo duggee ci Facebook bi da ngay yéemu sax ndax doo doo yaakaar ni mbokk yi yëpp ñi ngi ñi ngi suivre émission bi vraiment ñi ngi xaar bu amee ku bëgg a dugg rek mm, contribuer wu vraiment ci li des ci waxtu bi donte bareetul waaye ñi ngi ñi ngi négandiku ku bëgg a dugg rek mën ngaa dugg ci Skype bi euh, joxe sa contribution vraiment di ziar it euh, sunu sunu sunu sunu sunu mbokk sunu mbokk yi nga xam ni ñoom it euh, ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nekk ci <coughs> ñoo nekk ci jamono yi ci ci tali bi ñoom sëñ sëñ Modou Diouf <laughs> sunu mbokki chauffeur yi waa garage Touba. ñoom it ndeysaan dañ may yónnee message saa su ne di ma wax ni émission bi fu ñu fekk rek ci tali bi dañuy taxaw déglu ko wala ñu ànd ak yow vraiment ñu ngi ziar mbokk yëpp euh, di di leen di leen feddliwaat couleur gi xanaa Baye Fall boo amee ku bëgg a dugg rek mun ngaa ubbi ligne bi ñu ñu ñu dalal ñaar wala ñetti auditeur doog a doog a doog a tàggoo Baye Fall ñu ñu dugal ñetti minutes rek xasida lu doog a tàggoowaat Baye Fall bisimilah. waaw jërëjëf mbokki auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo xasida online ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Pape Demba Dia fii ci Pontedera ci xarale bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye fal noo ngi ziar mbokk yi nga xam ni nag ñoo ànd ak ñun ci émission bi vraiment maa ngi ziar bu baax sama rak soxna Ndeye Ndiaye Fallu sëñ Alaaji Dia sëñ Fallu Gueye Kumba euh, Mbay sëñ Thierno Dieng ak mbokk yi nga xam ni vraiment ñu ngi ñuy bàyyi xel maa ngi gis vraiment Facebook bi mbokk yi ni ñuy euh, suivre émission bi loolu dafay waral dafay dafay wéral ni rek émission bi gaa yaa ngi koy euh, bàyyi bàyyi xel maa ngi ziar nag sama jëwriñ Serigne Balla Lo euh, fële ca Suède ndeysaan moom it saa su damay gis ni <coughs> dafay suivre émission bi di ci ànd ak ñun loolu dafay wan rek. Euh, diaspora euh, émission euh, immigré yi la gars yi gis mbokk yo xamni Italie dañuy émission bi bu commenter vraiment di ci di ci di ba vraiment ci xam naa ñi ngi koy di ko wax rek sëñ Balla am nañ yaakaar ni dinañ la gis ci bésu xasida yi noo ngi ziar bu baax sëñ Ibrahima njaay ak mbokki Lombardie yëpp vraiment di leen uh, di di ñaan suñu borom may ñu ñu fekkee ba yegg si jàmm ci bés bi nga xam ni moo di bésu xasida di la set ñu fas koo du yéene defee fële ca Malpensa Fiera ànd ceeg uh, mbokki Lombardie waa. waa kër Sëñ ak tout tànk yeeg kuréelu xaside yeeg ñëpp daal euh, fas cee yéene euh, nañ ko defee woon daaw ñu def ko euh, nu ko nu ko raw di ziar it sama mbokk yi nga xam ni ñoo féete fii ci Toscana su ma tuddee sëriñ Mamadou Thiaw sëriñ Alioune Diop sëriñ mbooj Mbodj sëriñ Massamba Sey mel na ni tudd naa ñëpp. waaw ñooñu moom daanaka ak siñ ak siñ matar sey bëkk ceeb bu livorno euh, tey ji euh, euh, mën naa ni boo tuddee ñooñu rek mel na ni tudd nga kuréelu xasida yëpp démb rek ndeysaan ñoo leen doon dalal fii ci dera, ñu doon def ngontu xasida bu mujj ngir waajal bésu xasida yi kuréelu xasida yi nekk Toscane yëpp daje ànd ceeg tout mu doonoon bés bu am solo waaw loolu dafay wane rek pas-pas bi nga xam ni moom la daayira Sëñ Tuubaa yi am ak bëgg gi ñu bëgg bésu xasida yooyu euh, fas ci yéene niñ koy defee ak mu jot rek ñu ñu ànd ceeg mbokki taalibe di ci ñaan nag taxawaay bi ndax it euh, euh, dama ci delluwaat rek maanaam ñi indi seenu njaboot donte bésub lëmm la ñu xam ni Euh, xeetu njaay geeg yooyu baax na dëgg la waaye nag bés bi ñu fonk toog ci biir durus xasida yi euh, toogaay bi euh, maanaam ndax léeg-léeg nga gis bés bi jàll ngay seetaan image yi waaye gis ay image yoo xam ni daanaka moom buñ la ci jëlee de doo ci am doo ci am maanaam ndam ndax te jii ñu ne la bésu xasida nga ñëw Euh, euh, ñu war la fekk ci bés bi ci biir saal bi nga yore say dolu xasida wala jukkib kaamil waaye euh, fu ñu lay fekk daanaka ci biti nga toog di waxtaan bu caméra bi defee balayage fekk la ci biti wala it ñu fekk la ci biir nga toog toogin boo xam ni daanaka dangay waxtaan te it nag wax dëgg fa yàlla déglu kuréel yi doo doy na ak mbégte ci bésu xasida yi rawatina nag Euh, euh, boo dee nit koo xam ni da ngay tàmm yor say dol xasida di ko dund euh, di durus nga xam ni bés boobu dafay doon bés boo xam ni mën naa ni da ngay dund maanaam diine danga koy dund ci sa xol da ngay jóg ci bés boobu fees tel waaw kon nag bés boobu mi ngi noonu ñu ngi koy fàttaliwaat mbokki taalibe yi di ko fàttaliwaat képp kuy jullit ñu fas yéene ko amal samedi bii di ñëw incha allah di ziarit mbokk yi nga xam ni ñoom lañu ñu àndaloon tey ak émission bi euh, di di tuub na ci lépp loo xam ni rek euh, rëcc rëcc la leen xamal ni doomu Adama moom moo moo matul waaye lu ci baax rek ñu xam ni ndimbal suñu borom la di sant bu baax euh, Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni moo féete ci xarala bi nga xam ni tey jii mën naa ni ñun dañoo yore sunu làmmiñ di wax waaye tey jii moom. Euh, moo yor liggéey bi yëpp euh, bu taxawee rek daanaka euh, liggéey bi dara du dox kon jar naa jaajëfal di leen sant leen gërëm leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë ngeen jëf